waawoo na woote kon nag wuy ji ku jóg wuy ji aas am say ngërëm waawoo woote kon nag wuy ji ku jóg wuy ji aas am say ngërëm waawoo na woote taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci télévision ma faatihul bichri Euh, ziar nañ leen bu baax a baax fii ci Tiwaawoon comme niñ ko waxee noonu la ñuy ànd ak ci lépp loo xam ne dafa aajowoo jëm ci gàmm gi boobu ba léegi gis ambiance bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ciy ànd ak yéen fii ci euh, Tiwaawan euh, mu mel ni ki macha allah ak barab yi nga xam ne dem nañ fa yëpp waaye ginnaaw ziar boobu itam dañoo ñëw ziar si ki nga xam ne moom moo di alhaaji As Ndaw macha allahu euh, Serigne Habib mu Serigne Hadji Malick si Serigne Habib mu Serigne Mansour bu Serigne Hadji Malick si moom moo fas yéene ziar si ki nga xam ne moom moo di kër As Ndaw ba tax na macha allahu ñu fas yéene ñëw daal di fi ànd ak yéen ci li nga xam ne moom moo di ziar am solo boobu nga xam ne Serigne Habib sëñ Mansour si moo koy def fii ci kër Alhaaji As Ndaw nekk fii ci Tiwaawan mu nekk koo xam ne kenn la ci yoonu waaye nekk koo xam ne itam kenn la ci tare bi moom Alhaaji As Ndaw waaye itam xam ngeen dafa doon partenaire u Mafatihul Bichri nekk itam uh, li nga xam ne moom moo di taalibe Ahmed Sakhir Lo bu kokki ba tax na saa yu li nga xam ne moom moo di Tiwaawan jotee rek dañuy gis ne day sa bu baax a baax taxawaayam ci li nga xam ne moom moo di tarixatu tijaan ya waaye taxawaayam itam ci digganteem ak seriñam bi nga xam ne moom moo di sëriñ Habib si mu sëriñ Mansour si xam naa incha allahu rabbi dañuy daal di teewlu rek lépp loo xam ne jëlee nañ ko fi rek fas yéene nañ leen ko digtal incha allahu rabbi comme niñ koy defee rek ci barab yëpp kon ñun ak yéen fii ci Tiwaawan incha allah noppeegun euh, xam ngeen ne tey mooy fukki fan ak benn ci weer wi nga xam ne moom moo di rabiul awal di weeru gàmm euh, suba nag di fukki fan yi ak ñaar lépp loo xam ne itam taataan nañ ko fi rek incha allahu rabbi fas yéene nañ leen ko digtal comme nañ leen ko daan defaree at mu nekk xam naa ne am ngeen mbégte ak kontante ndax weeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo demee noonu eh, ñoo leen gën a bég ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci ëtt bi nga moom moo di ëttu Seydi Hadji Malick Sy kon ñun ak yen fii ci kër eh, Serigne El Hadji As Ndaw incha allah de leen jox ci kanam tuuti rek du yàgg wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa وصحبه ومن والاه والعاقبة للمتقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ Mouhamadul Habib Mansour ñu ngi lay nuyu ci baat yooyu nga xam ne jëfandikoo ko mooy jëfandikoo ndigalu yàlla subhaanahu wa nga xam ni mënuñu am baat yu gën a sell yu gën a tedd yu gën a matale baat yooyu noonu di la ci nuyu ci turu kilifa gi di sëriñ bi Cheikh Mouhamad Jamilu Ndaw ak mbooleem njaboot ak xarit ak ay bokk ak soppe yi nga fekk ci jotaay bi mu tàmbalee ca buntu kër ga ba ci kaw ñu ngi lay wax ni ñëw nga tey dellusi ci sa kër dellusi ci sa xadara ñëw ci sa pàkk ci mu doon loo xam ne ndono la lu jóge ko ci maam ya ak maamaat ya ñëw nga ci ñu la sopp ñëw nga ci ñoo xam ne seen tiitar nga yow waaye seen royuwaay nga ñëw nga ci ñoo xam ne ñi lay xool fii tey bët bi ñu doon xool seex Sidil Hadj Malick radiyallahu di ko xool seex cheikhul xalifa aboubacrin si radiallahu anhu doon ko xool wali mag wu baax wa cheikh mouhamadul mansour bët boobu noonu lañ lay xool te xam nañu ne ñooñu ma tudd seen bët yiñ ñu waroon a xool sirru ba tey mu ngi ci sa loxo ci tàkkusaan gi nga war ñu teg bët yooyu wuutu leen ci sëriñ bi saalum yépp a ngi nii sa kanam ndukkumaan yépp a ngi nii ci sa kanam sëriñ bi ñi aas am sëriñ bi am ko ñépp a ngi nii tey ci sa kanam mu doon jotaay boo xam ne jotaayu ndono la comme ni ma ko waxee sëriñ bi ci suba wax na ne la maam yi daje woon ak sëriñ Babacar si ci saalam ba mu xool leen bëtam ba ne leen Babacar si dey lu fees bëtam bëriwut waaye yéen nag fees ngeen sama bët kon loola rek la dundal wolof mooy wax ni butéel la mu def rek loola la saañ ba di xeeñ toll gajj goo gajj lang fa gajee moo fay jebbi kon tey jebbitu mag ñooñu noonu ñu tudd ñoo nekk ñii ci sa kanam duñu guddal ndax xam nañ na fañ la fekk bañ lay jël xam nañu ko xam nañ ne foo teg aas ak cofeel ak fonkeel goo am ci Saalum moo tax nga mën a suspendre yañ la fekkoon yépp ànd ak ñun rien que ngir sagal ñu yal na yàlla yokk sa sutura te yokk sa sag kàddu gi du gudd dañ la doon dalal rek di la tadagal di feeñal suñu mbég waaye foofu la ñuy jëlee kàddu gi jox ko aas mu wax ci li mu ciy wax su noppee nga tontu ñaanal nit ñi ñu yeewi la na ko waxee woon sànq bañ la fekkee ngay recevoir waa Ziguinchor yi bind la boo xam ne ñu nit nag danañ ci bàyyi xel danga ne waa Ziguinchor yi bu sëllu yooy bu giir demek neen kon ñu nit loolu lañuy la ñuy jëfandikoo wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu sang bi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi lay siyaare di la tatagal di la ndokkel ci jëf ju màgg ju sell ji nga defati di santit yàlla mi nga xam ne moo ñu boole di sant sëriñ man Mansour si radiyallahu anhu mi nga xam ne moo jëloon sama loxo teg ko ci sa loxo léegi suba maa ngi wax xale yi ma ne leen sëriñ Mansour fi ma ne ñépp dalay ñaanal soo amee yitte mu taxaw ca soo amee tolof tolof mu jël ko di fàttaleku rek at mu métti mi fi nekkoon mu boole ñu di dem seeti Paco Diagne barki dem bu daje naa moom ree jàpp ma ma xam ne sëriñ Mansour daal yal nañu yàlla taas ci barkeem may fàttali it lam ñu waxoon rek fii la génne ci saalam bi dox tuuti ne ma aas ni sa mbaal mi toll yal na ko say jën toll ñu ngi ñaan yàlla yolu yal na law di la waxit ne mbég mi ñu bég mënuñu ko wax kontaante gi ñu kontaan mënuñu ko wax waaye daal lañ la waxoon daaw wax la ko daaw jéeg mooy jàppal na ñun sa ay dàll lañ jàppal na ñun sa mbaxane lañ ndax li nga ñu defal dëgg-dëgg Tiwaawoon kenn amu ko fi bés bi ni mu xatee ak nii tey bëree ak responsabilité bi nga yor waaye nag léegi rek maa ngi koy wax ci suba ma ne wal balalu tey bu daal yaxruju nabaatu kuy sa way ju sëriñ Mansoor loo defut ci rek nit ñi laaj la ko mos naa ñëw golf fekk ko fa ma jóg ba jub ko mu jog lëng ma ñu def nii mu ne ma soxlawuma la de dama bëgg nit ñi nawee la ko respecté la ko te loolu man tey damay wax ne la manoon man weerantewu ma ne man nga ñaaram lu tax xam naa ne ku la gërëm la te it am na lum la bayee te am na loo ko defal nag moom bam gërëm la ca kon daal ñun liñ la waxoon rek suñu xol dafa fees amuñu lu ñu wax sag biñ ñu sagal sutura sëñ ñu suturaal ñi ngi ñaan yàlla sëñ bi yàlla na nga dund téeméeri at ak juróom fukk yàlla na nga dund téeméeri at ak juróom fukk ñun nag comme li ñu wax rek tey boo nañu woon dem leen ba gannaaw pir ngeen toog fa ñu jógee fii dem ba foofu ñu toog fa seen mbaax ak comme li may wax rek seen yiw ak it seen modeste moo tax nga defal ñu lu tedd lii waaye daal sang bi ah yaa baax man taweesu yaa baax waaye kontaan nañ de sëriñ bi itam ci suba macha allah fii la gën doon wax maggay dikk ak yaram wi xaw a naqari démb dafa demoon hôpital loolu moo ko tere mu ñëw toog fii dend ak yow waaye léegi rek mi ngi may wax ne ma comme kii ne na ngeen toppatoo rek incha allah bu sëriñ bi ñëwee suñ mënee gisee gisee suñ mënta gisee mu ñaanal ñu ñi ngi lay waxit ne saalum gépp a ngi nii saalum gépp a ngi nii e yaakaar yàlla yaakaar sa maam yaakaar la te it nag yaay suñ bunt ci yoon wi yaay suñ bunt ci tariqa bi yaay suñ bunt ci sëriñ Mansour ñun nag li ñu waxoon rek la ñuy wax waxuñu ne kenn lii wala la waaye ñun daal jox nañ la suñu bopp jox nañ la suñu njaboot jox nañ la suñu lépp jox nañ la ko suñu njaboot a ngi nii toog suñu ay soxna Eh, ma bañ a def ni comme sama nijaay rek fu mu dem gërëm jabar ji waaye suñu ay soxnaa ngi nii toog suñu ay rakk ngi nii toog ñëpp a ngi nii toog eh, dëgg-dëgg dañoo waroon kenn ku ne ñu jaar ci turam mais xam nañ temps bi xam nañu tamit li ñu defal boo ñëwoon ba jubbuntu kër gi ñu xool la nga xool ñu rek rek doy na sëkk sëkk sëkk allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim yakillu wala yuhda ilayhi wasulu wa qarqin bi shimlalil hawa qad qad ata'tu بآدم يعيا عن مضاح فهول منيخا لباب الآي والأي والهدى محبت أمين الوحي وهو رسول فكيف يطيب العمر إن دمت ها هنا وهنا الذي لولا داع السبيل وهنا الذي فالله يعطي لنا المنى فلولاه حقا لا يكون فطيل وهن الذي ضر يتيم وجوهر جسيم وإبريس الذهوب سخيل وهن الذي قطب عزيز مطهر رؤوف رحيم شافع ووصيل وأنا الذي نور الوجود مطلسم به في الحجاب الجسم فهو وكيل صباتي عن بدر دجى الكفر قد نفى كمن تاه في الطيه وقام يجول نروم ثناء المصطفى بعدما أتى ثناء من الهادي عليه جميل فما زال منقولا من أصلاب طهر إلى الطيبات الرحم نعم أصول فدنياكم هاكم إذا عاقني القضاء عن الزور من دار الحبيب خليل ألا عذموا ليل الولادة حصبة إذا لم يكن نحو الحرام حجول atat sittuna almusla xalimatu saadatin wa irdaauha xayru alanaami fudulu fa lillahi saqat jawaadu suraqatin xawaimu baada rujuci yaqulu mbokk ñépp àndandoo nag déglu sëriñ bi ne maa ngi nuyu Baye Jamilu Ndaw nga xam ni mooy kilifa ëtt bi di ci teg njabootam yu baax yi di nuyu saalum yépp di nuyu alxaaji aas ndaw ak ku mu ko seqal di nuyu njabootam gu tedd gi di leen andil nuyoo xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour ak sunu kilifa sunu xalifa suñu mag Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Mansour di indi nuyoo xadara bi yépp di leen jaal yi fi dox te ñu jaalante woon ko ba pare te mooy Serigne Maodo Touré bu Serigne Hadi Touré ak Seyid Cheikh Ahmed Tidiane si Maktoum ak Serigne Abdoul Al Amin ak Soxna Fat Sy Mansour ak ñi fi dox ci diggante bi ñépp mu jaalewaat leen ñaan yàlla yàlla yàlla yokk seen leer ziyaar leen ndokkeel leen ci li ñu fi tax a daje muy guddi gii di guddi kenn di rasulullahi ñu sant yàlla bi nu yàlla mayee ñu teeweeti ko ren fii lañu toogoon daaw ñaan yàlla mu maynu nu nu fekke ko déwén alhamdulillahi ba nu ko teewee mu ànd ak wér ak fekke ak tal yàlla jooju may nu ko tey noo koy tàllalaat mu mayaat nu ko ndaga ni déwén te déwén dàq ren te bu nammee ñaaw yàlla mel ne ren sëriñ bi nee ñu sant yàlla bi ñu yàlla dimbalee niser bii yàlla mottali ko di nag aas tabaarakallaahu tàgge boo gis am na jàppal diw bis bi daayire bi mbokk gi tund wi saalum gi lii ñu am ngir yàlla ak pas-pas ak cofeel moo leen ko may jaarale ko nag ci aas mu ko yàlla ñii di wax ni tabaarakallaahu wóor na ma ni Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour fa mu tëdd na Cheikh Seydi Aboubacar bég na Cheikhul Xaaji Malick bég na Cheikhuna Tidiane Chérif bég na borom bés bi borom guddi gi muy rasulullahi bég na ne daaw ak daaw jéeg ne sama baay daf daan wax ni bés bi dafa alaa daaw me ni gàmm gi ni gàmm wax ni dafa alaa daaw me waaye nag ren ji la alaa daaw me waaye du ngeen ma laaj lu tax xam nga lu taxa ubbi burdu ubbi burdu. guddi altine guddi altine. gàmm gàmm guddi aljuma yeneen ti bi salaay salaam léppam léppam altine la léppam ajjuma la fi yawmi lisnayni xat kaanal xuruju kama kaana duxulu wal istimbaaw fii numi fi yawmi lisnayni xat kaanal xuruju kama kaana duxulu والاستنبار فيهما على نبي وآله أجمعين سلام ربنا مامي برم دار جاني في يوم الاثنين قد كان الخروج كما كان الدخول والاستنبار فيه فامننا على نبي وآله إكو صبي أنت صلى الله عليه وسلم سلام ربنا دائما سير حبيب سمامون في يوم الاثنين قد كان الخروج كما كان الدخول والاستنباء فيه نومي ne fi yawmin lisnayni xad kaana alxuruuju déggal Maodo waaw xad kaana alxuruuju kama kaana adduxuulu wal istinbaau fiihu numi ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mooy mooy ahad mooy kenn ka ko deuxième mooy rasulullahi moo tax ñu ni isnayni moo tax altine ci la juddu altine ci lañ xal xol ba altine ci la jóge màkk altine ci la àgg madina altine la ñu wàcc ci moom alquran altine la dem ca yàlla altine la faatu altine la ñu ubbi burdu bi ala daaw mi ne de ne guddi àjjuma ku ne xam na ni àjjuma mooy sangu bis lu tax yeneen bi sallallahu alayhi wa altine di léppam te mu gën ñëpp tey sangu lépp aljuma di sangu bési te altine nekkul sangu bési ndax aljuma ci saa su jëkk ci lañ bind aadama aljuma déglu leen leeru muhammad ci la wàcc ci biiru ndayam muy amina leer googa wàcc ci biiru Amina moo waral aljuma di sangu bés yi leelal arubati durru fi rajabin suman munaadi yunaadi leelal arubati xalla durru fi rajabin sumal munaadi yunaadi musnil aadi malik ala nabi wa ali wa du ci yeneen سلام ربنا دائما مولاي سمامني تنبو أن نور الختم لي لكم قد حل في قيمة من سيد الحاج مالك على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما ki Kaffrine ci yeneen ana atiro baxira xayrul buxuri wa afrishu sajaadati takili Seydi El Hadji Malick nee na ala nabi wa ali ajmaina salaama rabbina daiman aman singil xati yeneen leylal arabati على الدر في رجبين زوانا تينادي مسمع الفهيم ليلى العروبة سيد سيرين بن ليلى العروبة حل حل در في رجب ثم المنادي ثم المنادي ينادي ينادي مسمع الفهم أن عطروا بخروا خير البخور wa afrisu sajadat takriman ala alxudami qaala almalaa'iku abwaabu samaa futixat kada aljinaanu wa nuuru shamsi fi lcidami kenn du Seydil Hadji Malick yàlla nañ ko yàlla fayal ne damay wax ni guddi gi ku fàtte sa bopp fàggul ko kenn kan ko fàggul lëf la te nag rasulullahi kenn mënu koo fay ne yëgal ni bu ñu doon dagg suñu yaram yii ngir yàlla ak muhammad yonent bi ëpp na ko waxu mag di ko jaar ndax koo xam ni ba mu la talee taloo sa mu tal talul njabootam xalaat la xalaatul njabootam boo ko xalaatee fay nga bor bi ne yonent yàlla muhammad sallallahu keroog ba mu tàngee lool jaxasoo lool ne nit ñi tiit lool kenn amul foo jëm hatta al anbiyaa yeneen ci yëpp jaaxle kenn ñemewul kenn xamul ne sa maam nee na bi aadama idrisin wa huudin wa yunusin wa luutin لقلتي وداود يعقوب سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وهارون وأيوب واليسع وذي الكفل يحيى ثم عيسى وسيلتي كذا ذكريا شعيب وصالح تقنا رضا الدارين من كل وحلة ومن آل بيت مصطفى جمع الشملنا بأصحابه كشف الشلال مهيبتي سيد الحاج كم دو سيد الحاج مالك ne ndax bis bu toll nii bu nëbbee boppam wan ñu Muhammad nëbbu boppam wan ñu yàlla wax dëgg yàlla foofa rek la mën a yem yàlla nañ ko yàlla fayal mu mel ni guddi gi kenn rek ko moom ne si judna Muhammad ne sama baay daan na wax ni koo xam ni boo ko teralee yàlla teral na ko boo ko teralul yàlla teral na ko boo ko màggalee yàlla màggal na boo ko màggalul yàlla màggal na ko yaa leen gën muhammad yaa leen gën yaa gën yaa leen gënee na ñëpp jóg taxaw ñu màggal muhammadu rasulullaahi bum nu gënee yàgg na lool muhammadu rasulullaahi waaye ba nu ko gëmee loolee yàgg na man moom dong laay way way li sëriñ baa ngi ne ana soppay muhammadu rasulullahi mooy nabiyun azimun xadri bil xaqi mursalu sayyiduna muhammadu gën ñëpp yal bil muskanati falan wayen xalu falillahi man moom dong laay way falillahi na ñëpp di fi nii nu màggal Muhammadu Rasulullah maa gën ngir barakallah sëriñ bi nee ma ni nee na yonent yàlla Muhammad yàllaa ko njëkk a tagg moo ko njëkk a màggal moo tax maam Seydi Hadj Malick wax ni naruumu sanaa al Mustafa baadama ata ثناء من الهادي عليه جميل وأوجد باخي القلق تعظيم حبه تعظيم حبه عليه تحية الإله عليه تحية الإله تطيب تطيب kenn du Seydil Hadji Malick wama xalaqa arrahman wama xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayidi lmahmudi wa huwa habib sallallahu alayhi wa sallam mu ni wa awjada baaxil xalqi nag taadima xibbihi alayhi taxiyatu ilahi tatibu tatibu alayhi taxiyatu ilahi tatibu taxiyatu ilahi alayhi alayhi tatibu taxiyatu ilahi Seydi El Hadji Malick mu ni bu la neex rek dugal ko fa ndax ñaar amuñu frontière jaar ak majruur ak zaraf ne fu la neex dugg moo tax Mawlana Seydi El Hadji Malick mu ni naroomu sanaa al Mustafa baada ma ata sanaaun min al haadi alayhi jamiilu ndax alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizraka yàllaa ko wax wadduxee walleyl ida sajee maa waddaaka rabbuka wa maa xale yàllaa ko wax muhammad والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها يلاكو محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كم كو يلاكو محمد waa kon kay yàlla moo ko njëkk a màggal waaye nag wax naa léegi ni màggal gii gàmm gi waaye buñ ko teg ci lal yu nooy rek buñ ko teg ci lekk yu neex nam ñam yu sedd naan yu sedd ñam yu neex tëdd fu neex climatiseur buñ ko fa yemale ndax fa ngeen jóge fa la ëppee ne kenn ku ne tëj nga sa kër wàcc say lal wàcc sa ñam wàcc sa ñam wàcc sa yu neex nee ngir yàlla ak Seydina Muhammad ak guddi gi guddi gi nag da ngay suural ruux xiifal bakkan a di da ngay suural ruux xiifal bakkan na ngay suurale ruux xiifal bakkan mooy guddi gi nga jox ko àqam àqam mooy lan salaat alfatixi wala salaatu ala annabi boo mën astaxfirullah boo mën julli naafila loo mën ak jàng alquran loolu kat mooy guddi gi waaye nag wan daal dem naa Tiwaawan siyaar naa fa ma daloon neex na naa fi dàq dal te julli woo naafila woo alquran woo salaatu woo ci istixfaaroo dëgg-dëgg da nga doon noos waaye gàmmoo te lu aas ba ni mu seddee nee guddi gi nañ ko jox àqam nañ ko jox àqam nee sama baay daan na wax ni tibb boo xam ni boo ko tibbee ren bala nga koy tibbati di déwén bu la yàlla dimbalee ba nga mën koo tibb boo koy tibb waaye fonkal tibb ba asamaan bu wàccee laalal balaa demaat guddi gi kenn xamul ne di nga fekke déwén nda wala doo fekke déwén te yóbbal la kat ndax rasulullahi loo baax baax ak noo mën a toll te bëggoo yenent bi yàlla reconnaître la ne sëriñ bi ne kon nag nañ ci profito te Seydil Hadji Malick guddi gii bi mu koy sos moog maam rawaan ngom kenn ku ne dañoo jël alquran kaamil bi ne maam Seydil Hadji Malick jël kaw ba xaaj ba jeex ne maam rawaan jël xaaju suuf ba mu jeex tàkk fajar jot ñu julli fajar daal dellu ne kon kuy njabootam di leen roy roy leen ca yooya nag tabaarakallaahu ñu dellusi woon rek ndokkeel si leen gërëm leen sant leen ci taxawaay yi gërëm sant aas ndaw mi aas mii kat wax dëgg yàlla nit ku baax la ndax mën mbaax daal mënta paase fonk kóllëre gis nga alal ji nee sama baay nee na jarul kapp-kappee loo ci bari le te bàyyi woo xel yàlla bés dina jot ñu jàll la jaale la tasaare sab jal te doo man dara kat waaye yéen loolu kay ñun xam nañ ci dara xoolal basin yeeg sañse yeeg oto yaag kër yeeg yëpp du la topp nee sama baay boo demee këram ñetti étage wala ñeent la fa tabax kenn jàppalewu ko ci nee boo demee tey fañ ko def dañ koo wàcce étage am jël ruq bu xat tabax ko dugal ko fa te la fa ne lépp moo ko fa def kat waa na loola tey ana limousine ba bu masaana romb ñëpp doon yuuxu waa ndax limousine ba dañ ko suulaale ak moom déedéet ana borom daara ji ana daara ja ana sañse ya ayna man shaadu wa saadu wa banaw halakal kullu falam tuxnil xulal ayna namruuz wa kanaanu wa man walaw arda wa walla wa azal ne loo baax baax da ngay dem loo bari le bari le da dem rek sa njaboot rek koy mujj ñoo koy mujj ak ña ngay bàyyi gannaaw waa kon ana lu ko fi jar nañu jaamu yàlla te bàyyi xel yàlla ku bàyyiwul xel yàlla dangay ngay rek ne ci des yëpp caaxaan la rek ne sama bàyyi nee na am alal jafewul boo ñemee yàlla suul bukki suule bukki léegi nga bari alal te kat xam-xam yéemewul boo xamee fi ak faay mën a xisa rëy làmmiñ foo fanaan ñu ni waa jàngee xam nga lu jafe ànd ak sa ren ba rewe waccoo ko waccu la te mooy kollëre billaahi ne kii bi ñu yàlla di boole cheikh seyd mouhamadunil mansour di ko teg ci suñu loxo maa ngi waat ci tariqa bi du ay jëmmam du toogaayam musuma ko gis jamono jooja ba tey ji dara soppeekuwul dara soppeekoo ci foo nuyoo aas da ngay ngir dundal kóllëre ne boobaak tey ëpp na fanweeri at te lu yàgg dëgg la yàlla na yàlla fay la aas ah, sëriñ bi ne yàlla na yàlla taxawu la sama baay moo la garanti gis nga yi ngay def nii sa mbaax la rek waaye yow ba nga amee garanti waaye aas ah, du tey te garanti boobu bu pour nit dundeeti ko foog mu sulli ji Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour génn yàlla loola door a dañ te loolu nag defe naa dootul yomb aas sëriñ bi ne yàlla nga muur loolu nga am sëriñ bi ne yàlla nga muur lépp la góor ga waxoon baayu baay Ibrahima Seen dafa ni woon carte kat yi bu ñuy carte ñu ubbi bayam ca aas luy yàq carte ga moom ñooñu duñ ca bokk waaye ngi ñuy carte ku ne ñu jox la sa poñ nga ubbi sa poñ muy ñaari aas nga ni nañ jaxase waat déedéet ay aas yow kay da ngay téewaat sa bos te naan jaxase leen waaye yow déedéet ne kon tabaarakallaahu aas sëriñ bi ne yow daal yàlla na nga yàgg a nekk aas aas sëriñ bi ne lii nga nekk bu la ci kenn nit jële gis nga nit du ëppi mbokkam du ëpp ay bokkam kat boo yorooni milliard te ñii la yàlla booleel nga cof leen ak say milliards danga koy ñàkk rek te lu mu bare bare ñoom kat la ñuy dunde mënoo leen koo jox waaye ku fi ñëw tey lii sagu na wax dëgg yàlla lii sagu na waay nee ñii fi daje dëgg-dëgg yow yoroo seen kër fayoo seeni courant joxoo leen dépense dundaloo leen kon nag la nga leen téye ba ñu ba def lu mel nii wax dëgg yàlla jikkoo la ko may ah sëriñ bi ne yal yàlla fay na bu fi ñëpp dajawoon te say bokk dajawuñ fi mel na ni kenn ñëw fi waaye bu kenn ñëwul te mbokk yëpp ñëw mel na ni kenn manqué wul saalum yëpp ñëw nañ ah sëriñ bi kontaan na ñu ngi kontaan lool nag ci biir kontaan loolu laa lay defaree lu neex gis nga demb ci suba yàlla seede na ko tariqa bi dama dem di ziyaar ji Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ak Serigne Babacar bi ma agsee ba ci rawdu bi ma ni góor gi ah, ah ëllëg day ca ngoon la sa waaja di def ngontam la falaa jëm nag maa ngi bomb si pour bomb ko <laughs> ah Serigne bi daa ñëw pour bomb si la ah Serigne bi ne damay wax ni maa ngi waat ci alaaji Malick ak guddi gi maa ngi lay wax ni ren jii buñ ci jëmee 2018 te gisuloo gisuloo lu dàq la nga romboon bu déwénee boo ma gisee bul ma nuyu yow aas déedéet sëñ mi ne waxu la de yow rek dama ni sax léegi ku fi teew ne ku teew ci mbooloo mi ñëw fii gàmm si fii nekk ci kër aas wala nga romb ci kër aas dégg ni ñoo ngi fi nga taxaw fi bëgg dem sa dara doxul bul ma nuyooti ne tey moom xaw ma ban bés waaye tey dama leen di garanti incha allah ku dugg géew ma dugg géew ku duggul géew ma dugg géew yàlla na ngeen ko muurloo nee suñu xol sedd na suñu xel dal na waaye aas daal bu sa xel demee ci sëriñ waxal jërëjëf waxal amin kontaan nañu gis naa nag nga jëkk ma waaye ren moom dama ni woon ci mbégte sëriñ Cheikh suñu kilifa ak suñu mbégte ak mbégte xadara bi ak fi nga féete xadara bi dama lay defal loo xam ni bu ko Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour fekkee woon jël ca fukk dolli ca te kat mooy décoré ba tey moom foo ma décoré la aas gis naa nga may décoré de waaye dinaa la décoré man tey man maa lay décoré man ana aas jugal aas na ñëpp toog toog leen rek toog leen rek toog leen rek كذا زبير رسول الله صاحب إذ لاقيا بركبين أب على نبي وعليه أجمعين صبيا كذا ذبير رسول الله صاحب إذ لاقياه بركبين أبمين فامنين على نبي وعليه أجمعين سلام ربي سن لخوتي ينن كذا زبير رسول الله صاحب إذ لاقياه بركبين أبرين شاي سرين بنا مينان يلا décoration bi Allah col gi yàlla nañ la ko décorer ca aljanna kon te mu yéex ne bu ñu amoon wurus bu ñu amoon mbubb wurus dinañ la ko solal lii ñu la jox mérité nga ko yaa ko moom bu dee basin yow am nga ko bu dee mbubb waaye aas am nga ko ndax yaa ngi ñu koy solal waaye yow nag lii ñu la defal du ay mbubb dañu la ko jox pour nga xam ni dëgg-dëgg yaa ngi ci ñun yaa ngi ci ñu xol ci ñun nga bokk bu la neexee bu la naqaree ne jusitum kontaan nañu xayran wa kufitum charran wa yudikum mayran wa yansurkum nasran nasran nasran tàllal leen tàllal leen sëriñ bi ñaan bu ngeen tàllalee nag sëriñ bi su ñaanee ngeen may ko mu rocceeku ndànk balaa ñuy ñaan sëriñ bi nim ñuy ñaanalee noonu la soxlaa ku ko ñaanale ñu defal ko ngir yàlla def fatiha ak juróom-ñetti li ilaafi qurayshin fatiha juróom-ñetti li ilaafi qurayshin ni ko sëriñ sëriñ ba Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum doon joxe ñu ñaanal ko yàlla yal na ko yàlla déeg yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla xaar yàlla bu mu yàqu yàlla bul ayub yàlla bul damm yàlla bul am sikk yàlla bul yàqule yàlla nga yegg yàlla nga mottali sa barkeb way jur ya lal nañ la téeñal yàlla nga mottali seen yaakaar ya ci barke yonent bi na ko nit ñi ñaanal loolu yëpp na ko nit ñi ñaanal fatiha ak juróom-ñetti ilay li ilaa fi salaatul fatiha mu doog ñoo ñaanal ñun yal na la yàlla may fan may la wér saxalal la sutura bismillah sa timis baal leen ñu rek timis dafa jot timis jot na dañuy julli ji baal ñu rek baal ñu timis jot na dañuy julli ji na ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan na ñëpp wax amin amin amin ya rabbi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin amin amin amin amin ya rabbi آمين يا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim. amiin yaa rabbi. yaa aaliman lanaa al-jamiila azhara. amiin. wa gaafiran lanaa al-qabiiha satara. amiin yaa rabbi. wa lam yu'aaxidan lanaa al-jariira. amiin yaa rabbi yaa rabbi. lam yahtiki as-sitra wa liya as-sariira. amiin yaa rabbi yaa rabbi. wa yaa aziima al-'afwi lil-aziimi. amiin. yaa xasana at-tajaawizi al-'amiimi. amiin yaa rabbi. yaa waasi'a al-maghfirati al-'amiima. amiin. يا باسط اليدين يا ذا الرحمة آمين يا سامعا بكل نجوى منتهى آمين بكل شكوى وله ما يشتهى آمين يا رب العالمين ويا كريم الصفح يا عليمة آمين ويا عظيم المن يا رحيمة آمين يا رب ويا مقيل العثرات هفواتي آمين مبتدئا بنعم ومن هباتي آمين يا رب العالمين بالفضل والإحسان ربي فعلا آمين يا رب min qablu bi istixqaaqiha jalla ala yaa rabbi sayyidi wa yaa mawlaaya gaayata ragbati atib maxyaaya asaluka allahumma yaa raxmaanu falaa tushawiha xilqati mannaanu ala balaa dunya adaabi naari fa hab lanaa najaata tilka daari amin ya amin ya rabbal alamin min ya amin ya rabbal min ya min ya amin ya rabbal alamin min ya rabbi اللهم صل على سيدنا محمد من يا رب العالمين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق من يا رب يا رب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 subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun wa salaamun wa salaamun wa salaamun wa salaamun wa salaamun amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin min ya rabbi allahumma min ya rabbi min amin amin ya rabbi barakallah amin